or tege de maa ngi koy waaj waaye moom fi mu toll xaw naa metti ndax euh, lii fi xew ndax depuis deux mois presque daanaka suñu liggéey doxul waaw ah waaye nag ñu sant yàlla rek te ñaan yàlla mu jële fi mbas mi barki sëñ Bamba waaw ah, Korité bi de gën mu ngi nii Korité bi moom sul yoo xamante ko duñ ko netele mu neex waa ndax neexu ci ci neexu ci benn secteur rawatina ñun ñun jot bi ñu am sax daawuñu ko am tey jii moo wàccee nii di wax ama waroon am sama liggéey doon moo woon fekk ma am boo xamante ni du ma mën a wax mais instant bi nii gisuñu daal loo xamante ni mën nañu occuper ba nga xamante ni dinañu booster ba suñu liggéey daal mooy loolu instant bi moom franchement bu ma la waxee dëgg rek métti na trop métti na ci ñun métti na trop daal ndax lañu yaakaaroon ni ci yeneen événement yi gisuñu ko ci bii ndax feebar bee tax xam en tout daal ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla feebar bu teel fee jóge ba yeneen événement yi ñëwaat ci kanam tabaski baa ngi jub si ñaan nañ ci dem ak jàmm fekk tombeek feebar bu jóge fi ñu mën a leluwaat daal suñu secteur dooluwaat doxee daal daal comme doom noonu daal bu njëkk côté bi waajuma dara dèjà maa ngi nii sama bopp bi léttuwuma fireeku xalaatuma sax fireeku bay létt ndax awma temps wam awma jotam ñu ko daan préparé du pause di tek ay greffage neeri fi bi yoon daal damaa tok ni parce que gisuma dara dëkk bi wow na woo goo xam ne à cause du corona moom mooy lool. korite bi waaw korite bi de xam kan naa ni koy waajalee moom comme niñ ko santaanee ya, rek. jaar ci ndigal rek ndax xam nga loo xam ne si maanaam moom ki nga xam ne dafay wut sa sa sa sa sa yaram ah li ma sant nga def ko rek ñu bañ a wàcc loi bi rek comme ni ko kilifa yi waxee eh. de loolu rek laa ci xam ñu waaj ko ndànk rek. ñaan yàlla mi nga xam ne si moo nu teg natt bi mu teggi ko ci jàmm. ah état bi daal moom moom ñoom ñu ngi ñu ngi def ñu ngi def seen kem lay kàttan xanaa ñu yokk leen rek buñ mën a jàppale euh, doom aadama yi ñu gën koo dolli rek waaye ñoom it ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu baax a baax a baax na ñu ngi seetaan télévision ñu ngi dégg information yi ñu ngi dégg ndimbal yeeg yëpp ñu ngi koy dégg nan ko gën a dolli rek te jàppale opérateur économique bi parce que depuis deux mois seeni liggéey doxul te am na ne engagement ci fournisseurs yi ak ci banques yi ñu gën leen a jàppale rek yombalal leen nag frais yi y lijjanti ci banques yi loolu mooy tax ñu mën a gaaw reprendre waaw. ñaata dem juuf jàpp bon loolu ça dépend rek loolu question organisation la bon dem juuf jàpp bu fekkee gars yi mën na jël seen préparé wu au cas échéant fekk loo ñoo xam ne maanaam jàpp yi dafa am ay sama looyu demee nga xam ne mu waaw ñu xool ñu koy defee ñun mu gën a rafetee daal parce que ñun ay jullit lan naa booy ay jullit lan quoi et puis il faut tamit yàlla la mu demee borom bi la borom bi su ko neexoon suba suba suba atul jóge da ngeen boole gëm yàlla tamit aussi korité bi comme niñ ko doon waajale rek comme noonu lañ koy waajale mais korité bi ren moom dafa spécial ak euh, jamono bi mu tombeel donc noonu la noonu la demee rek quoi parce que comme niñ ko doon comme niñ ko doon waajale xëy na demewul comme noonu ndax te fekk na jamonoy corona bi et tout donc mais sant yàlla bu baax quoi xëy na demewul comme ni mu daan demee ñu ngi ci ko comme dab waaw client yaa ngi ñëw ñu ngi ñëw tuuti tuuti ah ñu ngi ñëw tuuti tuuti pas comme ni mu daan demee nag mais mu ngi ñëw tuuti tuuti donc am na ci parce que am na ay kii client fidèles yoo xam ne nii moom nu mën demee di leen ñëw comprendre nga mais nag bu comme niñ daan ñëwee noonu lay ñëwee mais ñu ngi ñëw tuuti tuuti xam nga di indi kii ñu leen di ñëwal. ñu sant yàlla rek santaat yàlla bu baax a baax ñu bokk ci ñoo xamante ni dinañ dem ba nettali feebaru jaaroon na fi waaw loolu daal la ñu ñu daal ñu organiser waat gëma xam ni ñu daanee feebar bi. ñun ñu suñu secteur doxaat comme na mu meloon bu njëkk daal waaw loolu daal la am ci waaw xam nga jàkka yi dañ ni maanaam jàkka yi bëgg nañ ñi kii ko waaye maanaam kilifa yi dañu maanaam dañoo wax ni loolu d'accord nañ ci am nañu ñun dégg ñu ne d'accord aguñ ci te léegi xam nga léegi ginnaaw werante ma ngi ciy am te lislaam moom daanaka ne amul werante ah ñu def ko ci ni nga xam ne si ndax euh, ni ko waxeeti julli iid du farata ndegam julli farata la ñu fi la ñu teg ñu ni léegi nañu bàyyi ndax wér-gi-yaram ñu bàyyi loolu sàkkantuma laak julli gi nga xam ne yow boo ko tardé woon doo ko fay loolu rek laa ci amoon lu may wax su ko defee nag man ah membre laa ci rek ah man dañ maa yilif te kilif teew moom ku ñu yilif da yem ci wàllu ki la yilif rek respecté loi bi rek comme li ñu wax ni ak ñaan yàlla mi nga xam ni moom moo teg natt bi mu teg ndax yaakaar nañ ni lépp ci moom la ku ko neexoon suba suba mu teggi ko kon nag yàlla nañ ko teggil ndax jamono ji metti na metti waay boo xam ne kenn ku ci nekk liggéey bi ngay liggéey kenn ku ne xam na ni fi mu nekk nii metti na ko defee nag yàlla na yàlla ubbi bunt yëpp mu leer nañ ñëpp ànd wér yaram réew réew mi ak bitim réew ñëpp parce que njaboot rek a fi nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp ay suñu njaboot lañu kon nag li ñuy ñaan mooy ah mu teggi lépp teggi ko ci adduna bi ni ko fi tege woon mu tege ko ndax moom rek moom ne lu yaakaar ni moo ko man te moo ko man te li wér moom la su ko tegee rek mu tegee jërë ngeen bu ma dégg maa ngi ziare def lu nekk mu bi rek kattanu yàlla baax Mouhamed ngi am jàmm xam nga ñëpp di dem ñëpp di dikk yaa ma ba li ma li woon ñëwaat loolu lañuy ñaan yàlla def dëkk bi jàmm ñëpp am jàmm xam nga loolu lay ñaan te yàlla musal ñu fi noon yi noon yi noon yi nga yàlla musal ñu fi ñoom yaa ngi dégg loolu daal moom la ñaan incha commande bi waa commande bi instant bi mi ngi wàññeeku commande bi moom instant bi mi ngi wàññeeku bu baax parce que instant bi nan korité gi daanaka ñëw na jeex na ñëw na ba pare donc mooy loolu quoi comme commande yi dafa yéex a ñëw rek moom. mooy loolu presque mën nañ wax ne daanaka benn semaine rek la tey liggéey et tout quoi donc noonu la demee mais sant yàlla bu baax ah, parce que client yi am na lu jot ñëw daal am na lu jot ñëw xëy na ñëwuñu comme dañ daan ñëwee mais li ñëw géré nañ ko donc sant yàlla bu baax daal. waaw day am ay commande dañuy am ay commande chaque jour sax même bu dul événement bu dara dañuy am commande chaque jour dañuy dañuy occupé mais bi feebar dugg see daal ba léegi ay benn benn benn client gis nga bi nii. gisuñu kenn daal ay benn benn ngay gis lu ci ëpp daal ay xale ay val ay brode ay vax wala la ñuy ñaawlu waaw corona bi kay mooy mooy mooy wax ji moo tax réew àdduna si ami problème fépp la du sun du sun réew mi rek nag àdduna sépp ami jafe-jafe waaye nag ñu sant yàlla bu baax xam ne natt bu fi sun borom indi la yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke sëñ Bamba sama domi sama domi ni jaay kenn ñawlu ci xalé yépp ay ensemble lañ leen jënd parce que amuñu temps bi amuñu xaaliss bi moy lool te gëj nañ liggéey ça fait 2 mois yo xamné ne ñu ngi ko toog ñu wol à cause du Korité bi daal mo taxoon ñu ñëw daal pour takalé ci kon client dañuy ñëw. waaw te client pas tout tout non non pas tout tout lañ ñëw ñu ci ëpp ay brodé lañ ñëw wala ñu jënd xalé yi daal daanaka xale rek dañuy jënd. ba loolu tamit taxul ngeen yokk seen prix Mm, non non daaw lu ñu daan jaay dañ ko diviser par deux di kam gën a moyen pour yére mun fee jóge ñu xool leneen lu ñuy def balaa tabaski bi xanaa di ñaan yàlla naa bi jóge fi rek ba tabaski ñu waaj ko jàmm incha allah. waaw non moment bii du moment loxo parce que moment bii def naa ñëpp dañoo war a ku dawal coopération rawatina bu fekkee ñi nga daan liggéeyal ngay liggéeyal da ngaa war a coopération du moment yoo xam ne da ngaa war di yokk loxo wala nangam nangam parce que a la bu metti ci ñëpp donc dañuy maintenir prix yi ñu daan liggéey rek. continuer ko quoi continuer ko ak suñuy client donc noonu lay demee quoi.